xibaaru bés bi dañu koy doore rek ak mbas mi di Covid 19. wéy di def ay jéego ñi nga xam ne ñoo ci jotandi bëri lool nag rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom la ñuy yóbbu fële ca réanimation loolee nag jaaxal ki nga xam ne moo di njiitu réew bi Macky Sall rek ba mu jóg addu daal di wax ak ñi nga xam ne rek ñoo ngànk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci ndaje bi nga xam ne nag amoon na ko ak li nga xam ne moo di ministre rek ci àllarba bi ñu weesu rek muy ñaaxaat ñi nga xam ne rek ñoo yoral wér-gu-yaram bi rek ñu gën a yokkaat seen liggéey ngir xool naka la ñuy def rek ngir mën a faagaagal mbas ndax li nga xam ne rek ñoo koy séntu nekkul benn yoon rek loo xam ne day jur jàmm leneen moo di imam Kanté moom nag moo di xàjjaloo gi nga xam ne ñoo koy def ci diggante góor ak jigéen ndax ci constitution bi dañ cee defoon li nga xam ne moo di parité waaye nga xam ne moo di ministre de la famille rek moom respecté wu benn yoon ndax bourse yi nga xam ne mu koy jox ngir ñu dem Maroc ak Tunisie ngir mun faa jànge loolee nag ba mu ko daal di génne rek dafa jël fukki jigéen jox leen yoolee bourse amul benn góor bu ci loo moo tax ki nga xam ne moo di moom la constitution bi wax daa def juróomi jigéen juróomi góor ngir mën a am benn équitable loolee nag ndax du tax rek ba ñi daal si gis seen bopp ba mën a jël beneen yoon lu jëm ci wàllum nawel yi rek ak li nga xam ne moo di fooykaay xale ak leneen lu nu mel nag daal dinañ ci arrêté benn nit rek lu waral lu nu mel nag mooy yooyu les liquide wala yooyu les boissons nga xam ne ñu koy jox xale yi wala jouet yi dafa am leneen di alcool te ñi nga xam ne rek ñoo ngi ko doon jaay daal dinañ leen téye boo sax daal dinañ ko yóbbu ci kanamu procureur rek mu la ñu am rek gannaaw ba nga xam ne fan yi la ñu weesu gisuñu woon benn cas ci lu jëm ci mbas mi di Covid 19 rek mu am foofee ca Touba jamono ji na dañoo gis ne nag lu baree bari bari ñoo ngi fay jotandi feebar bi lu tolloo ko ci fanweeri doomu aadama daal dinañoo jotewaat ak mbas mi rek ci ay ay bés yu tuut loolee nag buñ ko saytoo rek buñ ci deful rek loo xam ne rek dañuy daal di faagaagal mbas mi na loolu jëm ci ba euh, ci juin bële ñu weesu loolee nag ci tribunal correctionnel Assane Diouf nag avocat bi nga xam ne moo di maître Clédor Ly nag moom nag nee li waral boobu la demande rek moo di ñoo bëgg ñu daal di ko bàyyi bàyyi ndëggandiku ak leneen loo xam ne rek bëgg nañ ko tamit moo di ñu daal di dindi lépp lu jëm rek ci wàllum l'enquête de la police bi nga xam ne na moo di Assane Diouf kuréel gi nga xam ne moo yor rek lépp lu jëm ci wàllum euh, wér-gu-yaram ci àdduna bi li mu daal di digle rek yi nga xam ne rek ñoo ngi ci jëm li moo di masque yi day nekk loo xam ne obligatoire la njaboot moo di Noël fële ca Europe xibaaru bés bi dañ koy jeexal rek ak wàllum tàggat yaram kii nga xam ne moo di Zinedine Zidane ngi moom nga xam ne moom mooy entraîneur Real Madrid moom nag dafa ñëw rek daal di génn daal di wax ci ki nga xam ne moo di Karim Benzema di ko daal félicité rek di xam ne kooku ñëpp war nañoo mën a war a roy ci moom li waral lu nu mel nag moo di du bi yi nga xam ne daal na ko dugal rek ngir mun koo jàppale moom mi nga xam ne moo di Zidane waaye tamit jàppale waaye Zidane moom tamit li mu xam ne rek ci boo xam ne kenn mënu koo naatable la ndax nekkul di jouer rek ngir mun a marqué ay bii waaye day jouer ngir mun a yóbbu équipe am ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe bi loolee moo ndar li nga xam ne moo di xibaaru bés bi ñu leen jox dig daje rek ba ëllëg incha allah waaye laata loolu woy leen ak sunu site bi di leeral moom nag ngeen di mun di taataan li nga xam ne moo di xibaar yi ci daar daar